calme ci sérénité ci jàmm loolu nag la ñu bëgg mu continuer euh, partout dans le Sénégal partout euh, di wax ni euh, am vraiment confiance que bu au Sénégal incha allah daañu delluwaat président Macky Sall tey jii mu toogaat fi Nous at ndax li mu fi liggéey dafa am solo ci wàllu mbay càmm napp ci walu infrastructure ci walu énergie ci walu filets sociaux yi euh, de telle sorte que askan wi gis nañu ni wax un deuxième mandat dès le premier tour di wax rek ni recommander euh, département quartier Sénégal voter dans le calme où voter ba paré ñu ñibi bu proclamation résultat yi